ku seetlu bés bi li ko jur ak la ca borom waxoon da nga xam ne lam waxoon rek mooy li fés bés bu muy gën di leer xam ngeen ne Serigne Touba bi ñu koy indi fii résidence surveillée lañ ko doon def dañ doon paralyser aw yoonam ngir bañ aw yoonam seqeeti benn njéego ñu paralyser ko aw yoonam moo taxoon ñu indi Serigne Touba njaareem muy résidence surveillée tëj ko ci benn barab dootu génn jëm fenn. bëggona fay aw yoonam mo taxoon ñu andi ko fi yoon wi far fi gëna takké tàkkee ndax benn tubaab bu bari xam-xam bu ñu wax monsieur Antoine mari monsieur Antoine mari di labbe bu bari xam-xam lool mo waxoon ne Serigne Touba kenn mënul ci jëmam ji dara bàyyi leen jëmam ji ngeen di fexeel ndax man sama xam-xam may na ma topp naa ko suuf fala sama xam-xam mana yam mom ma ngay wéy xawma fam yam ci souf top na ko ci asaman yi ba juroom asaman sama xam-xam fala yam mom ma ngay wéy fam yam ci ko xawma ko fam yam ci souf xawma ko te yeen umpule wulen ma lolou musse wa Antoine mari moko ko ne len ken mënul ci jëmam gi dara kon bayi len fexé ci jëmam fexé len ak njabotam njabot gi ngeen di fexel su ngeen fexeelul njaboot gi ni mu tëxe dana mujj ay njabootam tëye noonu bu ñu fe bu ñu fexewut ci moom ci njaboot gi dana mujj ni mu tëxe ak njabootam noonu la ñuy tëye monsieur Antoine Marie mooy wax ne ndax gis nga àgg nañu foo xam ne suñ dee waxtaan ci moom walla ñuy jàng ay mbiñ na muy xasida yi ba leer yi dikkal leen dana def loo xaye ku ko def te du ñoom da ngay faatu te ñoom du leen wàññi dara ndax xam ngeen ne booba yoon wi àgg na ci suñu waxtaan yi sëñ Tuubaa wala mooy jàng xasida dëgg ba jël yi ñëw dañuy taal ab sébb dugg ca sébb ba mag ñi daan nañ taal ab dugg ca sébb ba ferenkalaayu ca sébb ba sébb ba tàkk ba jeex sér yi ñu sax dara du ci lakk waxuma seedu yaram di baxal am ndox di ko sangoo taaj am ndox cib taal ba muy wañax nga jël ko di dang di sotti sa yaram di ko sangoo di yéeg ci kaw garab ba ca kaw nga juutal sa bop daanu ci suuf jog fa xasu dara du la jot arrière lu sori ben xar muy daan mbeuk garab te dara du la jot jaar ci siñam sàkket di ja daw na la na bari ko ci ndox ci ndox lola lol lepp mag dañ ko daan def señ bi waxtaan ñu daw tibbu fu taal nek ñu tibbu xali sa ya di ko di sankami di buusu mu ne leen loolu nag suñu ci sakkul pexe dana mujj ay taalibeem kenn du man ci ñoom dara kon pexe mi ngeen ciy def mooy bu leen ko bàyyi muy toj àll yi di gor ay dëkk di tarbiye ay taalibeem kon day mujj ay taalibeem dañuy naaw ci jaww ji ni ngenaaw yi di naawee ngir leer yi muy def ci ñoom yóbbu leen ko ci dëkk plaax bu am marché góor ñeeg jigéen ñi di jaxasoo ñuy jaay ak jënd di am ay bàkkaar leer yi muy def ci ñom di wàññiku ñu ne kon nañ ko ni njurbel tej ko fi ben yoon mu bañate jëm fenn lolu moy sababu sahir si way sababu batin bi nak fekk na serigne touba waxon na ak njaarim ndax kéro bañ ko yobbu gànnaar mo yoon wu njëkk njaarim li yoonu ñaarelam la bañ ko yobbu gànnaar 1903 lañ ko njëkk a indi gànna lañ ko njëkk a indi njaarim tëj ko ci biirëb société dégg nga sëñ Moussa Ka wax naan ñu fab ko tëj ko ci biirëb société mbaaxaan di wax ne bu ko kenn seeti ca guddi gañ ko tëj ci biirëb société guddi googee la mbaaxaan rocc ko ànd ak mbooloo dem daaru man naan ngir ne sëñ wut na ay gànnaay dafa bëgg a xeex ca la buur ma doo fenn wutoon jàmbaaram yu bari yooye ne kii kat wax na xam na ne doomi buur la te mu wax li mu wax dara amu ci ndax sëñ Tuubaa soxlawul lu dul yàlla ak ab yonentam attan da koo duural nag kon fu mu taxaw taxaw leen fa bu geesoo na leen gis loolu moo tax soo ma saa dem soo demee daaru xuddoos ca bayti da nga fekk xeej ba nga xam ne ca la mbaaxaan jamoon ca gaal ak sëñ Tuubaa ga kon yoon woowu la ñu yóbbu sëñ bi gànnaar muy 1903 ñu tëj ko fi ca guddi googa nag bañ ko fa jëlee di ko yóbbu gànnaar nga xay ma nga jullee suba tiwaawoon kër sëñ Maodo bëgg yi taalibeem bu mag boobu tabax nañ fa jumaa di ko màggal at bu ne booba nag la suufal njaareem jooy ci baatin wax ak sëñ ne ko damaa defee ne da ngaa ngir defar ma waaye xaw ma wane da nga fiy jaar rek dem sëñ bi teg ko loxo ne ko sëñ Tuubaa ko loxo ne ko muñal maa ngi dem maa ngi ñëw lawo xitaa bii sa sin la daa mbuqaat yi la tii tumiirul bala daa su ma ñëwee ci yow ba am fi yow juróom-ñeenti at danaa def ngay dinaa moom leer fu leer mën a nekkati buum ngaa fa def waaye dinaa moom bi fii la de suuf soosu jaareem door dal sëñ bi dem gànnaar ba am fa juróomi at ñoo ko ci jolof mu sañc fa ñaari dëkk daaru Rahman ak daaru Xuddoos kër gu mu dëkk fa ñaari at muy ñeenti at atam jureel ma nag di 1912 di la sasin caañu pexe pexey andi ko njaarim bi nga xamee ne janvier am na fukki fan ak ñett fukki fan ak ñett ci weeru janvier 1912 premier janvier 1912 ci fukki fan ña ak ñett doonoon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tam xarit ci atam lësësin bi gàddaay gi amee junniy at ak ñett téeméer ak fanweeri at bis boobu samedi jooju di gaaw la ñu moom di ko indi fii ngir résidence waaye ci lay ñaari bayit yooyu muy ramoo ma siiri ila njurbel la daa lësësi ñi ngi sàkku sama ñëw njurbel ci atam lësësin waaye law aanoo siba maa fii sa yirima raamuur suñu xamoon li mu leen di jural ñoom ñu koy sàkku duñ ko sàkku ndax fa sayru mawtun alaa mën naa soowa asan ndax ñoom dee lay doon ci ñoom ak lor waa noo lee ibqaa'un wa ikraamu te man nag dama fiy des te tedd nga rek laa fii dese ana ña ko doon wax xoolal mbooloo mii fi teew kon sëñ bi demul fenn la mu waxoon bis mu ne muy gën di leer ñu xëye moom bisu gaawu yendu bel ceski falan si lumbel keur fari kewe xëye fa mer ji yendu si kedd ballooji gonte fa jullee timis diggante darul manan ak touba falan si daaru alimil khabir muy ndam keur si ndam abdourahman do mu julli suba xëye fa yendu si ndulo ma madu saw cheikh ba ñang fay tabax juma julli fa tisbaar ak takkusaan gonte fa falan si njaarim yalla dogal mu dajewaat ak bisba di altine fan ak juróom la sëñ Tuubaa ñëwoon njaareem ji tey màggalu ko juróom bis ba del siwaat doon bis ba mu doonoon kon bis la boo xaye lu ci waay sàkku da ko am ndax bis ba daa del siwaat da jëw dëppoo ak bis booba ñu andi ko ci kër commandant mu am fa fukki weer ak yet kër commandant lañ ko andi mu am fa fukki weer ak yet fekk na nag ni ko sëñ Samba Awa mii doon waxe ci la yëlli maneel falu bi sëriñ bi ñëw ñu xam ne sëñ bi moom du dëkk ci néegi tabax soxlawu ko booba yëlli maneel day doole faru ñu woo ko ne dañoo soxla ay néegi ñax lu man ñetti néegi ñax ndax ko nekk ndax dañuy am ay gani tubaab te gani tubaab moom lu luñ liggéey ci bant moo leen gënal fekk ne sëñ bi la wutal ay néeg ñu dem kër Baay Laay Gay jël fa ñaari néeg kër bay lay Gay Baay Laay joxe ñaari néegi ñax ñu dem ngooye jël fa néegam ñax xoolal néegu ñaxu ngooye sëñ Tuubaa fayal na leen ko jumaa mu ñetti néeg ñu andi ko kër commandant samp ko fa ci néegi ñax yooyu la sëñ bi nekkoon fukki weer ak ñett fukki weer ak ñett yooyu mu ci am daana def suñ demee ba guddi gi kukk nga xay guddi gi sori mu génn loolu itam ci géej ko jële ci moom toog ak moom mu wax nu ko mooy sëñ Mbàkke Jaxate sëñ Mbàkke Jaxate moo sëñ soxna Faati Jaxate way juru sëñ Abdoulahat ak sëriñ Saliou ñoo bokk ndey ak baay muy seen na jaay moo doon caawum sëñ moo doon caatam sëñ Madu Asta Jaxate waaw yéen waa Ngoyeen jumaa la leen sëñ bi fay seen néeg ba te it doomu yëli manel moom nag te tegoon liggéey bi ci loxoom man teew naa fa bu dul benn du ñaari bi loolu amee nag sëñ bi su guddee gu guddee muy dem fee ci kër gu mag tey nga xay kàddu gi ñuy wax kàddu jullikaay dafa jullee néew yi moo mag ci mboolem péncum njaareem su ko defee mu dem foofa sëñ Mbàkke Jaxate ne maa ngi topp ci sëñ Tuubaa ngàbb ak satalaam sëñ Mbàkke Jaxate ne boobu fukki at ak juróom laa amagul ci àddina fukki at ak juróom ndax bi ma àndeek bàyyam sëñ Madu Asta Jaxate muy siyaari sëñ bi bi muy dem sëñ Tuubaa ko ne waccal ma ak Mbàkke Jaxate sëñ Mbàkke moomu nag amoon na ab cër ci sëriñ Tuubaa jërëjëf Angoye jërë ngeen jëf ndax mi nga xamee ne sëñ Mbacke Jaxate moom mu sëñ Tuubaa da koo séddoon ci boppam ne ko fu ma mën a ne nanga ma fa fekk man nga ma faa fekk ci biir kër gi fu ma mën a ne rek nanga ma fa fekk waaye it bu bat boppu sëriñ Tuubaa kawar gi bu ma saa bari mooy ki daan wat sëriñ Tuubaa moom sëñ Mbacke Jaxate moo daan wat kawaru sëriñ bi bu bopp bi sëqee moo ko daan lewi it bu weyi sëqee amoon na ab cër ci moom yor na ñaari jigéenam itam muy soxna Mariama Jaxate way juru sëñ Abdoulaye ak sëñ Soybu ak soxna Fat Jaxate way juru sëñ Saaliwu sëñ Mbàkke Jaxate nee na bu ñuy toll fii ci xur wi nga xaye di jéggi ndox mi pom bi nee na foofu sëñ bi dafa may war raw fukki at ak juróom laa am waaye lu ma farlu farlu sëñ Tuubaa ku ànd moom mu raw la nee su ko am ñu may dogale di ma laaj sa tool ak Serigne Touba ngir ñu barkeelu ci ci ndox mi waaye du ma leen wuyu nee na ñooñe seeni kawar daa gudd bay laal ci suuf waaye du ma leen wuyu man nu ma jotee Serigne Touba rek laay itewoo nee ma xam gannaaw gi laa door a xam ne ñooñu ay jinne lañ ndeke jinne yi ñoo ko doon dogale ngir bëgg a barkeelu ci sa tola Serigne Touba gi mu yor ci ndox mi nee nag su ko defee suñu àggee ca kàddu jullikaay jeefe pénc ma su sëñ bi defee li muy def ba noppi bu jógee bu ma filee tànkam ma jóg daal di jëlaat satagay topp ci muuti fi ay armel ya nekk Dakar am na Dakar gu fa ne moom it jàkkee Serigne Touba la bi Serigne Touba ñëwee nag foofa 1913 ba sañ ci kër gu mag ba dëdd armel ya ah Dakar googa nekk ci biir armel ya suñu mbokki daari kajoor yi daal di jël Dakar ga di fa denc ñu naan ko Dakar naar ndax ñoom dañoo yàgg yeewu waaye jàkkee Serigne Touba la. foofu nag kàddu jullikaay gi fi la sëñ Tuubaa daan gàmmoo gàmmu gi mu fi njëkk a gàmmoo maam Cerno Ibra Faati borom daaru moo ko jiite fi la daan jullee iit itam ba jumaa njaareem àgg 1924 mu door a tàmbali ci jumaa njaareem di ci julli iit korite la ko ubbi inigireen jumaay njaareem korite la ci sëñ Tuubaa jëkk a julli waaye sëñ Balla Bousso nettali na ma ne am na bés boo xam ne fii sëñ Tuubaa da leen a yónnee am njaal ca gannaaw kaw la fu ñuy wax Bamba Moussa kër sëñ Moussa Paate Darabe waaye nee na bañ demee ba Saalum Kawlax nee ñu xam ne ay murid lañ fa lañ leen wàññee ne leen muridisme du génn bawal ngeen di ñëw ba Saalum ne ba tey àggunu fa du sëñ Tuubaa yónni woon kon la ma waxoon ci njëlbeen dañoo bëggoon a paralysé yoonu murid waaye yoon wi jël na avion dem na kon tey taalibe yi am nañ fa kër sëñ Touba man de dem naa ba gannaaw Amérique waaye faa fi dem fu de njabootu sëñ Touba ji rek ñoo ma yóbbu kon bis bi bis la boo xaye benn bis tolluwu ni ci lislaam waaye rawatina ci yoonu murid rawatina nag. lii nga xam ne moom la sëñ Alaaji Njaay gën a yittewoo ci bés bi ci ak bennoo bennoo nag Sëriñ Tuubaa ci jëmmam def ci lu dul loo xam ne maris la ne kenn defu ko ci ndax Sëriñ Tuubaa moom li ñuy wax ay géer ak i géwél sax lii Samba Samba wa doon wax léegi Sëriñ Tuubaa moom xamut loolu xamul ay géer ak i géwél ndax ku ne xam na ne ab taawam di soxna Faati Dia daa joxe woon ndigal ne nañ ko may sëñ Mahmoud Mbegere sëñ Mahmoud Mbegere ku ne xam na ne day aw ab wuude la waaye sëñ Tuubaa ne woon nañ ko may doomam maam Jaara ne ko way xarala la Mahmoud de way xarala la baax na loolu waaye xanaa sëñ bi xamoon ne way xarala sëñ Tuubaa ne ko luy way xarala mu ne ko ab wuude la sëñ Tuubaa ne ko man de Mahmoud xaw ma. sikkam ndax waliyu la kon koo xam ne ki yow ñu ñuy wax ay géer ak ay géwél xamewoo ko lislaam nga xam ndax loolu dañ koo fabriqué rek ñoom dañ ñoo gën a yeewu dong fabriqué loolu rek di ñu nax dong waaye du leneen da ngeen nax rek képp déedéet am fabriqué léegi la amul ci lislaam lislaam andiwu ko ah lislaam andiwu ko de waaw kon nag loolu kon loolu kooku ci benn le ci la ne ji tedd ji nag di sëñ Lam Dooro way juróomu tedd wa di sëñ Abdou Sisi kooku ba dalee dem ci Cheikh Moustapha Al Karim boobu sëñ Modou Moussa Taïf fekk na ko fa ay jamono yu yàgg yu bari tey kenn ku ne xam na ne sëñ Touba ak maam El Hadj ñoo bokk mel ne maam ci ñaari wet yëpp muy ci wetu nday ak ci wetu baay kon benn rek lañu ñoom ñëpp te looloo dañ ko daan doxante bokk kooku ne seen diggante dañ ko daan dox di ko jokkalante sëñ ma wax na léegi ngan gi nga xam ne sëñ Basiiroo ko bind. sëñ Basiiru doomi sëñ Touba di way juru sëñ Muntaxa mii di sëñ Touba tey ba sëñ Touba demee njaar ne gane ji maam El Hadj Malick dem na njaar ne gane ji El Hadj am faak moom diir ba ko soob booba sëñ Touba fas lay war waaye ba muy ñëw El Hadj daa takkalu aw fasam moom it ànd ak sëñ bi di ko bijjanti ñoom ñaar seen yaari fas ya dañuy dox ba nit ñi séeratuñ leen kon lañ fa waxtaane kuñ ko waxul doo ko mën a xam. ba noppi nag ñu bokk mel ni maam bokk diine lislaam bokk mel ni réew lépp ñu di ko doxante yoon wii sëñ Mor doon wax sëñ Abdou Assis naka jekk mës a dem Touba te jaarul suñu daara ci kër sëñ Mor Mbaye Cissé ndax dafa bëgg alxuraan man mii di wax ak yéen rek am na bés boo xam ne daa wax sëñ Mor ne ko daara ji dana am lu ma leen dimbalee mooy kiis goo xay kuy ko defal da nga am xam-xam waaye nag mbay ngiraan mii laa koy jox ndax mooy sama mbokku ca jolof ndax suñ demee mooy naan ci sama kër maam ñoo fa bokk mel ni maam sëñ Mor ne ko kon may moom ma bind ko ci sama loxo nga wax ko ma bind alaji ma sëñ Abdou Ciss di wax sëñ Mor di bind ba mu àgg sëñ Abdou Ciss ne ko jox ma kayit wi mu jox ko mu jëkkati kayit bi te ci sama loxo ne ma ku la neexal defal ko ko dana am xam-xam walaayil asim barki sëñ Touba maa ngi mbind mi Wow, léeg ma am ñu ma ko jox. waaw àllarba lañ koy jëfandikoo ngoonu àllarba lañ koy bind ibin. ko suba ak alxames waaw gannaaw tàkkusaan lañ koy bind gannaaw tàkkusaan lañ koy bind ba ci bind ko ci biti bu asaman setee ki nga koy jox balaa ndékki nga jox ko ko bisu alxames bi kenn mënta am xam-xam Lol man sëñ Abdou Si moo ko teg sama loxo muñ bindam sëñ Mor Mbay mi ngi ak man yoon wi sëñ Mor doon wax keroog sëñ Abdou Si dafa wax ne day ñew touba ci sëñ Abdou Lahad loolu jamono Abdullah. Abdou Lahad la jamono yi Abdou Lahad Mor ne ma ana mbay mana ne Mbàkke mu ne ma ci yoon wi ngay yendu ci buntu kër gi ngay yendu gàttandu sëñ Abdou Si di ko teeru ba ma yendu ca buntu kër ga fàtte ba ban julit isbar ba isbar jall abdir ci am do six aksi biñ aksi ak corne auto yi kër kër nit ñi kër kër kër kër kër señ mo ne ana mbay ana mbay mané ne anambai mu ne ma tuug way neen la ka mom tambali na di gané waw ne ana mbay ana mbay mané mbacké ma ngi mu ne ma tuug way la ka mané ko ala béykat boog siisee xana ñak min rek mu ne ma jitul yobu dalal señ bi mu yobu ko ci neeg bi ma daan dalal señ Abdou Lahad mu tok bi toge ba nopi ma daal di ci señ mo war ne ko bi day tok na mu daal di jóg ak man ñew di ci suuf nuyu señ señ Abdou xol señ ne ko yar de len nga ci def nga ñëw fekk si ma ci laal bi nu bokk toog mënoo ko ba fekk si la ci suuf nu bokk toog waaye nga toog fii ma toog fii moom loolu du ma ko nangu sëñ Mor moom nag si loolu laay def ndax fii nga toog fi la sëñ Abdou Lahad di toog te su fi toogee man fii ma toog laay toog te xàmmeewuma la ak sëñ Abdou Lahad xàmmeewuma sëñ Mansour ak sëñ Bassirou xàmmeewuma sëriñ Cheikh Tidiane si ak sëriñ Cheikh Mbacké Gaynde Fatma wallahi asim lii la ko wax keroog ñuy waxtaan mu daal di ne ko bëggoon naa fee yàgg nag waaye lu ma ko man ndax ba ma damaa dem bay jóg ñu yëgal ma ko wàcc ab liggéey mënumaa jóg ci joxuma ci ay ndigal te sëñ Abdou Lahad ma nga toog rek di ma nekk te tisbaar jàll na lu yàgg kon nag ni ma fi naroon a yàgg duutuma ko man damay dem sëñ ma war ko man de da yéen a ma tëj kaso yéen da ngeen maa tëj kaso ba mënumaa jëm fenn waaye kon maa yowee ànd ba ba ngay wëlbatiku ba wàññi ko waat ba tollu fii waye mbay ngiran mi nak lay lay bolel mu and ci yoon wi fa mu rek sama jëm tew dafa kérok ma and ak seigne Abdou Ciss bañ démé bayit ay bayit le seigne Abdou Ciss bind nu yok seigne Abdou Lahad bokku na ci mi ilam ni harifi sani khadim safi al waral mbakki yi abdullahi abdul ahadi والسر الالف سوددي اتى لهم رو الاسيس الباخي للخلق ليهديهم الى الخلاق مصيدا هركان حاس الدين بجاي سافيل الورى الامين اسكى سلام من محب فاني فيه بكم لبار الاكوان اتاك زائرا والهي مجددا هودكم لله سي سيبدو اسيس يلا نكو يلا فيال بني غوندو دفعنا اي بيت magana maqiluna hinda tuubal yawmi ixwaani hisun wahidun lana min xayri buhtaani wa nasal allaha rabbi an yutila baqa ana tawilan ala asab ihsaani bi jaay ahmada xayr xal ajmahim safi inaal mujtaba min xayri adnaani kon ñoom li yàlla defal ñu bennoo noonu la ñu mel ci saayir noonu lañu mel ci baatin amuñu genn wuute amuñu genn juuyoo amuñu lenn ñoom ñëpp benn lañ ci wet yi boo dem nag boo demee ci ma aram ñu doon lenn nga dem ci mam Lamine dem ñu doon ben fofu jaar rek kenn lañu ñu bok ak bëgg itam bok seen lepp itam nak di diiso itam ci lepp nak ci sahir ak ci kon limay faral di wax naan jam rek mo waral ñuy berante jam jàmmanu ko may nun julit buñ naan ke khadir la ke abdi jall ke am murit la buñ koy wax jàmm tax nu diko wax jàmm tax de way su fekkoon ne delu wat ci xare yefar ak julit wara xex julit yi sàppe yefar yi sàppe so demee ci sàppe julit ya do ci xamé mourid ba khadir ba tidiane ba julit yaa nga nee rek kérok badar xamuy wok kenn kenn kenn ñeppay tapo kon suñu xajolé rek jamanu ko may kon jamu jono ko may nak warna tax nu gëna and ci gëna and ci batine ndax seytaane moom tàggale rek ay liggéeyam saytaane ay yaxumu bil waayidi wal isnayni fa isaa kaanu salaasatun lam yaxumu bihim saytaane yitteem mooy tàggale rek moom ñu tàggoo daal am na la mu bëgg ñu ànd ñu ne nag tëj nañ kon nag ñu ngi leen di sant bu wér di leen gërëm di leen balu àq di leen balu àq di ñaan suñu borom boole nu jéggal noo ngi taxaw taxawlu foofu ndax euh, bés la boo xam ne kenn ku ne am nga ci wàll ku ne am nga ci te man defoon naa ne lii ma wax sax duma ko man ndax ku dégg sama kàddu xam ne soj mi xaw na ma jàpp mag itam jàpp na ma kon yooyu yëpp dafay feeñ ci man waaye noo ngi sant ñëpp di balu àq ñëpp di balu àq ndax eh, ab jullit moom du wàcc rawatina murit bu fekkoon ne alaatara day am retraité day am kon man duutuma tax wax kon damay retraité wax dëgg yàlla ndax kuy wax di wax di wax nag ba am ñoo xam ne ñi ngi lay waxal war ngaa mën a noppi waaw di wax ba am juróom-ñett fukki at ak juróom kon war ngaa mën a dal nag waaye baaxal sëriñ bi rek moo tax ba tey suba tàngooree mën naa wax ba suba te duma ko yëg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen baal naa ak jërë ngeen jëf